salaamaaleykum bokki jullit yi sëriñ Abdourahmane Mbacke xalif Gaynde Fatma moo leen di nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di yëgal jullit yi ne jot na ndigal lu bàyyeeko ci sëriñ Ahmadou Moukhtar Mbacke xalif Cheikh Moustapha al Karim te ndigal li bàyyeekoo ci sëriñ Mountakha Mbacke xalif général des Mourides màggal bi sub isriina Muharram di ñibbi si Xaadimu Rasuul ci Touba balaa bi wàcc ci àdduna bi sëriñ Mountakha joxe ndigal ci màggal yi ci jàng alxuraan ak xasida te wattandiku ndaje yi ngir mën naa sabab ak wàllante di jur lawuk balaa bi ci jullit yi yéeneem mooy nu yàgg fi te amug wér sëriñ Abdourahmane Mbacke yitteem jëpp mooy déglu ndigali ay kilifaam te fas ko yéene jëfe mi ngi nuy soññi ci jàng alquranul karim xasida istixfar salaatu ala nabi bernde yéene yool ba xaadim rasul ak jax Mustafa al karim mi ngi ñaan balaa bii sunu borom jeexal ko ñu ci wopp wér ñi ci faatu tabbi ajjana te musal ci kum dalagul nawet bii sunu borom àggale ko te mu barkeel te nu muurloo ko Cheikh Abdourahmane Mbacke gaynde Fatma ne kilifaam yii fuñ joxañ fa lay aw Cheikh Muntaxa dafa diggal murit yi moytu lu dooleel mbas mi wàll giy law bernde alxuraan xasiida foo nekk def ko yàlla fay la aw yiw ku jëf ndigal làq ngërëm ak barke saadix bu jóg xelu xeloo fi daa raw seex abdourahman mi ngi leen di ñaanal wér gudd fan wër sëf wu yaatu neb taw seex abdourahman yàlla na gudd fan wér gor la jullit la te murit la buñ naw am ne am na la am say nawle boo ko muñee mu nangu sa cant jox say nawle ngay xoole